mooy suñu mbalax national bi boo mee kebs xam nga nag euh, ma laajte Sénégal fi mu nekk nii mhm. man su ma defu mbalax ku koy def moo ma jaaxal su ma mbalax bi delloosi ko fi mu nekkoon teg ko ci palaasam ba ñëpp ne waaw ma doog cee génn def leneen kan moo koy def ñun ñëpp moitié bi yëpp foog nañu ne bu ñu demul def euh, l'international common on rek defuñu musique man complexé wu ma bara war a mën a bàyyi fi juñ yi xiin yeeg sabar yi maa la ko wax naan maa ngi defi leneen déedéet lu ko may kon doo gëm sa bopp ndax bu fekkee américain bi la moom daf ñu gëmloo li muy def ba pare même bu dee tey léegi wàll si nañu jël Afrique bi sax di jël si suñu yëre yi di solo comme ñu ni ñuy soloo mhm. di ko boole ci seen musique dañoo njëkk gëm seen bopp ba pare nigériens yi aussi comme on dit dañoo njëkk a gëm seen bopp ba pare doog a mën a jël leneen doole ci nañu dooleel mbalax bi ba pare ba ñu ma def beneen musique de mën naa ko it de car macha allah barka yonent bi <laughs> xam nañ ko bu desoon bu doon loolu rek la ma continuer def loolu kese waaye du ci domaine boobu mhm. dama gis ne mbalax bi dañ demoon ba benn moment dafa vide mhm. ku ne boo bëggee génn Sénégal defe leneen kan mooy defal xale yi ñuy sàjj mbalax mu toog <laughs> barka rasulaay di ko téye di gën muy neex dund da koy dund waaw man man damay dund waaw man man damay dund mbalax comme ni may naanee ndox mhm. dama ko bëgg mhm. kep sa caam barka yonent bi te li tax mooy mbalax bi daf may jox ay sonorité yoo xam ne billaay wallaay bi non je te dis ah ne man sool laay def nëbbuma ko man bu weesoo mbalax bi sool laay def mhm. man ay Lord man loolu laay def déggal li waaw waaye léegi dañ lay bàyyi nga dem ñëwaat mais balaa ngay dem danga ñuy may benn acapella neexal <laughs> saal